kolere gi nekk ci taalibe yeesu yi ñu ngi jukkee nettali bi ci téere jëf ya saar ñaar aya ñeent fukk benn ba aya ñeent fukk juróom ñaar nanu bamtu nettali bi weesu benn lan nit ki gëm di won ñeneen ñi bu ñu ko soobee ci ndox dafay wone ne tuub na ay bakkaaram te gëm na yéesu bu ñu soobee nit ki ci ndox dafay wone ne nangu na ne yeesu dee na ba ñu suul ko ngir moom bu nit ki génnee ndox mi dafay misaal ne yéesu dekki na gannaaw gëm na yéesu bokk na dekki ak moom mu ngi dund léegi ci kirist ñaar ndax dañoo war a sóob nit ki ci ndox ngir mu mucc déedéet sóob gi ci ndox dafay misaal li am ci sunu xol sóob gi ci ndox taxul nit ki doon doomu yàlla taxul nit ki mucc ci mbugalu bàkkaaram li yéesu dee ngir nun rekk moo nuy musal ñett ndax soob gi ci ndox mën na raxas bakkaari nit ki déedéet deretu yeesu ji mu tuur ci bant bi rekk moo mën a raxas sunuy bakkaar fa kanam yàlla ñeent lu tax ñu war ñu sóob ci ndox ndaxte yeesu moo nu ko sant te moom itam sóob nañu ko ci ndox ndaxte seedala ci nit ñi ne tuub nañu te gëm nañu ne borom bi yéesu dee na ñu sol ko mu dekki ngir musalnu